yàlla xam na ni. waa léegi lan la. ah xanaa jom yi nit ñi war a ñëw jël seen ñaw yi ñawloo ma wax pare teg fi seen ñaw yi ah bëgg a bàyyi ba ñu suba la ki nit ñi am ci yeneen yu nekk. ñuy ñu ñu toog kaa leen jël seen ñam ngir yàlla ko réew mi toj. dëgg fa wax dëgg fa yàlla. koo woo la wuyu ndax dafa yaakaar da nga koy ñaan. Mm-hmm. koo woo bu jàmm santeeg moom mu yaakaar da koy ñaan koo vocal du la wuyu mu yaakaar da nga koy ñaan xaalis. ku gis sa vocal xamul ni kaay gis sa tissu la la la yàlla seen ñaw dëgg fa yàlla kenn jëlatul téléphone. xam na ni billaa wallaay tàllaay ku ñëw dernier moment doo ma fekk ku toog ba heure bu la neex nga ñëw doo ma fekk ndax damay julli ci jolof dëkk ñoom papa booy ci ne fa laa jëm falaay julli ci waaw. man Viviane ku bëgg gis samay mbir koj ma ci Feeling Dakar ay Feeling rek la Feeling Dakar maa di seetaan yéen ko yor